daa soxo bi nga xam ne euh, Sonko bi nga xam ne mooy médiateur diggante euh, euh, Casamance ak gouvernement bi médiateur social la mu wax ñu ñëw ñoom El Hadj Abou Bilal Kouthia Show lan la mën a def ci jàmmu Casamance Sonko nañu seeti. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen nuyu jërëjëf jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp war naa man amu problème man Sonko amu problème bii yu yu sundu yu mhm. sundu moo yónni moom mu ne dema nga gis uh, papa mhm. Sonko nga wane ma yebal Kouthia mu ñëw bii Youssou Ndour moo yebal moom mu ñëw man maa woo dem seeti Youssou Ndour waaye man munu dem na jama bi war doo diggante gouvernement Sénégal yépp Fouta yeneen dëkk yi bu Casamance man maa nekk boobu am naa bu dëkk bu ne. Mhm. waaye man ne bu man maa bu Sénégal euh, bu Casamance man maa nekk boobu. olof bi na setu ah. nda mi soose man din kole ala mana tiara kere ala barka man dina ci soose kii mu ngi bind yow bi baaxu xanaa journaliste boo am ne du am bi am paas i ñaaw na ah, yow boobu da nga bàyyi journal kenn xamu ba école la génne géwal bu demee ba abal journaliste bi nga xam ne kon lii est-ce que jàng na waaye amul solo yow mhm. war naa soose yow fii olof dégg nga mhm. dena olof de mhm. bu juumee dina waa de dégg nga soose gar yow gar mi mbay dégg na soose kay kay asalaamaaleykum asalaamaaleykum e Youssou Ndour ila kana boo ñeena lu mu wax ma ni asalaamaaleykum. waaleykum salaam asalaamaaleykum. waaleykum salaam nee na mi ngi nuyu Youssou Ndour. ni aleke. inyamale kuchaso. Mhm. Casamance kinke tinkilia tanka tinkilia tanka Casamance wóore. Mm. nee na. Mm. ma ni. lii nga xam ne mooy groupe Kouthia Show. bu ñëwee Casamance. Mm. dina ànd ñoom wër ñoom. fépp foo xam ne doomu ñaami. yàlla baane ko. soose kanine ñabali koko anta yani abdoulaye balde solo ne siken so siki sori ne katile perisak bijana moole ka bunkiling bunkiling neena ah. lépp loo xam ne muy région de Casamance. Bindal yaa xam mu doon Tanaas. yaa xam mu doon Bunkiling. yaa xam mu doon Sédhiou. yaa xam mu doon fépp foo xam ne Casamance nga fa. yëpp ñu la woo woo Balde. ñu ñëw xam ne wax dëgg yàlla ñu ñëw xool ah, lii nga xam ne mooy Kouthia Show ñu ànd ak moom taxawu ko jàppale ko ci lii nga xam ne mooy Kouthia Show. jaamaani ko ja jaamaani. jàmm. jàmm si kaane ne Casamance rébellion ni rebelle Kouthia Show lele artiste Kouthia Show lele rebelle una Kouthia Show commencé na una ko rebelle arrêté tan una koko ñoom ñëpp daa nga tuko ah wana wana rebelle yi bu ñu seetaan Kouthia dañuy kontaan ba duñu def génn ci télé groupe Kouthia Show doona war a rek dé waxul boobu boobu dina ñëw dama wax rebelle bi rebelle bi reb bi dafa xaw a fort rebelle bi rebelle bi ñoom ñëpp bu Kouthia Show commencé dañu teg arme arme yi ñu reetaan ñu nelaw jàmm laa ilaaha kon wax ja fay na nag nee na ok képp kuy rebelle hmm. seetaan Kouthia Show hmm. yëpp dañ ko jël te toujours ba Kouthia Show jeex jag ina jàmm ina jàmm bi ku mee amee ba tey bi ku caa amee ba léegi ñoom du wax sax waxu guerre ba na jeex na nee na boobu du nu wax waxi guerre jeex na bàyyi na boobu ñoom ñëpp sax nee na ñoom bàyyi nañu booba waaw parce que ñëpp ñu ngi reetaan def na reetaan reer foo na ki na ku coolo ani ka jàpp ma nee na yawo bu ñuy seetaan ku caa soo yekani dañuy ree ka tappante ko dóora jeeg mi ñoom ñu dugg ca yow doo pousse dama ni ci explication waaw iyaka konyole bila dale iyaka nyole sanyamali sanyamalati nyole buntalanka bunkili fatikunda sanya sane mane jeju gojan koli kanyamo ko saya ka rebellion ina ka kasama tane bima ko koy bima koy jotani mane mom mom garmi rebel yëpp dañu yàkkamti mu ñëw foofu ak waa TFM ana mu ana garmi bu ñëwulee ñoom bu waa TFM indiwul garmi du bu du baax de parce que war na ñoom garmi neex na leen ñu ne garmi dafay nurook Salif saajo te dañoo namm Salif Sadio ñoom nag garmi buñ ko jàppee mooy garanti groupe bi bu ñu ah bu ñu gisul garmi dañuy jàpp ñi nekk ci Kouthia Show yépp waaye jàpp leen ba pare danañu bàyyi ba ajjuma émission jàkkaarlo rebelle yi jugee Casamance dugg ci émission bi kidnappé ñëpp il n'y a pas amul kenn ku ñuy bàyyi nañu ñu indil waa télé bi yépp bu ñu mënul indi Youssou Ndour ci àll bi mu wayal rebel yi dañu ñëw biir TFM jàpp émission yépp ajuma incha allah lan mooy jàkkaarloo jàkkaarloo rebel ak journaliste jàkkaarloo en ya journaliste paas lan paas ban koy ñaan paas kan ngay ñaan paas journaliste buy ñaan paas baal ma ma gis munoo seet ci yàlla ko mbokk ci jëmmi yàlla nga bay robel yi waaw waaw dimbali noonu ngir yàlla nga bay robel yi rebel amul waaw ñun ay géwél lañu de rebel amul rebel yi nga xam bi subaak ngoon guddeeg bëccëg fu ni ñu mbirim laaj nga tudd rebel ngir yàlla waaw waaw ah, nga Salif Sadio eh Salif